tur di bind seen i di bind seen adresse mais aussi Abdoulaye Diouf Sarr jiite ñu ñun ñëpp nañu taxaw nañu kenn ku nekk ci yéen li nga war def na ko def kenn ku nekk ci yéen fi nga war taxaw na nga ko taxaw mais nag aussi le secrétaire général du ministère de la santé le directeur de cabinet ànd ëpp équipe bi ñu ànd ñëpp docteur Mbaye ndeysaan moom it tey toogul taxawul mais mais Ndeye Maguette ndeysaan médecin chef région de Dakar léegi fii comme que ci man la comme que ñëpp dañuy def dispositif yi moo tax agent Il commence par les travailleurs, il finit par les travailleurs. Et c'est ça, au important. Tout je parlais du dispositif sanitaire du Sénégal. Concernant l'existant, li nga xam ne am nañu ko am nañu tey wax naa leen ko 79 districts de santé am nañu tey 104 centres de santé 1415 postes de santé tey jii autour autour de 2676 da nga am case de santé loolu dafay wane encore une fois ne docteur Mamadou Ndiaye taxawaay bi mu taxaw directeur de la prévention xam nga attaqué Pape Mansour ndeysaan xam nga lii dafa rëy mais nag damay def sàcc firme parce que Pape Mansour du ma ko fi téye lu yàgg mais Pape Mansour tey def nga lu rëy Sénégal yi waaw Sénégalais woote looloo